c'est la génération consciente au complet on dit toujours euh, une équipe qui gagne c'est une équipe qui est soudée c'est une équipe qui est nouvelle. good morning uh, everybody we are here in the triple. we are coming to Hambourg from the Rakaju show of Pape Diouf and the General State Christian we are here the better Jules Salam alaikum Jules maaleykum salaam Jules ci yoon bi nii de. tas nga Barcelone jógee Barcelone dem festival Salam def fa lu doy waar jógee fa dem Malmo tey nag ñi jaar nag pour dem Hambourg lan ngeen waajal Hambourg nag raakaaju show ba ngeen fa gëjee yàgg na. xanaa lu rëy rek lañ fay waajal am na mën nañ leen te gëj nañu Allemagne ñu ne ni moo tax ñu teel a jege ji ñu toog noppalu fa ñeenti fan ba juróomi fan pour pare leen lu rëy bi beesee yu tàngee ki yëpp naa ne foofu dara du fa jeex incha allah. gars yi ñoo ko déggandoo ko koy jour Diop mooy batteur bi mais nag kaay nag suñu chef d'orchestre baa ngi nii nag dafa sonn xam naa instant yi mi ngi inspiré wu Papis Konaté yaa ngi nii jëm Hambourg nag maanaam ba ngeen jógee Barcelone jaar Sweden maanaam jógee fa dem Malmo muy spécial Rakkaaju Show biir Hambourg ak Génération Consciente loo leen dencal. waaw mais ah, euh, mais comme sommes en euh, Espagne je pense que bii mooy deuxième partie pour tourner fin d'année donc la euh, troisième partie du mois de décembre Inch'Allah, Nous euh, jouons Barcelone donc vraiment soirée au Mancani, c'était super et puis Disney ngeen internet bi Tange dugal na ko ci vraiment ambiance humaine neex ak euh, les lutteurs vraiment mu doon affaire bu nice bon Hambourg nag euh, li ma gën a neex nag euh, ci tournée bi mooy on a fait un pas de plus par rapport à ak Suède def nañ fa un festival festival Salam on a joué juste deux heures de temps de concert ah. et puis le lendemain aussi nous ñëw Malmont ça c'était aussi très bien super avec le groupe hein, qui marche très fort maintenant on utilise des euh, dernière soirée nous allons jouer a ça. moom xam nga moom bu mujjee tout le temps rek foog ñu bëggee carrément bon à condition que nag waa Amour nag génn facilement parce que xam nga Pape moom tant que public mi ngi gis public rek moom mi ngi au top donc euh, ñu ngi woo ñëpp waa Amour vraiment ñu ñëw découvrir le groupe parce que man pour man c'est le meilleur groupe à Dakar qui sonne bien. Amour Cheikh dégg nga chef d'orchestre mu la wax. appareil mbir yaa ngoog ñi toujours génération consciente européen tour ñi ngi ni nag kii moom dama leen koy filmer rek c'est le moom mooy Laye Diouf mooy gérer équipe bi Laye benn kàddu ci waa Hambourg. Hambourg ñu ngi leen di nuyu xamale ne ñu ngi nii ci yoon bi pare leen ñu ngi ñaan yàlla nag fi ñu jaar yëpp ah Hambourg raw fa ñu ngi ñëw daal pare leen gaa yi yëpp nii nii ñëpp nañ damay profité di remercier waale suñu mbokk joolaay yi ñu jul le parce que foog ñu rappelé yi neexoon na trop jóge foofu waa Suède encore foog ñu remercier leen encore Hambourg ñu ngi noonu ci bi yéen a ci des. gars ñoo ko déggandoo kii nag mooy Gagnerie mooy la danseuse moom instant yi day nelaw nañ ko bàyyi mu nelaw rek ba yeew. ndeysaan nag kii mooy le grand bassiste su ngeen déggee base bi ngeen di dégg génération consciente c'est Lamine Diagne Lamine Diagne Hambourg a nga lay xaar yaa ngi nii ci yoon bi wax la ko waa waaw mais dara waa Hambourg moom nañu xaar rek te xam ne fa ñu jaar yëpp lañ fa def lu raw lañ nar def Hambourg. bu ñëwee foofu yëpp toj loolu moom waxatuñ ko waaw. xam nga nag moom la Lamine wax mais su ngeen déggee génération consciente dafa am benn noyau bu ci nekk su ñu nee noyau bi nag koo koy Amath Samb ndeysaan xool leen ko fii ak xasaayit bi lépp ci Serigne Touba ren ñu ñaan yàlla Amath nag xolal toj nga Barcelone.

Abdou fi ngi teew ak ma sàmm ngi teew génération consciente billaay toj neen gi gars yi leen ñu ñu ngi indi lu beesooy gars yi leen kon ndeysaan yan yendul yendul mbaa nga fanaan loolu neex na am Samb léegi nag xam nga fu ñu jëm ci ndeyu mbind li ko kan le nouveau pape de la musique sénégalaise Pape Diouf toj nga Barcelone jógee Barcelone dem festival Sowet Salam, manam pour la première fois à Stockholm ñi gis benen musique ci Pape Diouf ñu don nan Pape Diouf day mbalax ndekete Pape Diouf amnay secret yu mu à travers l'international. deux heures de concert no stop ci festival de salam ginnaw Youssou Ndour Salif Keita Oumou Sangaré toujours moy li ma waxoon rek yaa ngi ci tànk Youssou Ndour pour relever la musique sénégalaise lay wax ak wa Ambour gars yi nee nañ guddi raakaaju waaw xanaa yàkkamti rek dugg Ambour ndax nak moy dernière soirée avant tournée bi di jeex Ambour xaar leen bàcc. gis ngeen lu mu indi nee na bàcc ba mu saf. <laughs> buur Géwal Mbaye jógee nga Paris topp Pape Barcelone jógee fa ñëw Stockholm li nga fa gis waxal ak waa Hambourg waay. yéen waa Hambourg dama leen benn affaire li leen di wax secret la Pape Diouf toj na Barcelone Pape Diouf toj na Stockholm Pape Diouf toj na Malmon dama ne yéen waa Hambourg xaar leen ñu ngi ñëw man nag su ma egsee damay bàyyi gars yi daw noppalu ko mu ànd ak Tange daw dugg ci dëkk bi salon yi. restaurant sama gaay xaar la dugg ci dëkk bi jaxase dëkk bi yamuñu am bour de ah dañuy dem Brême jeex dañuy dem Berlin jeex dañuy dem Francfort jeex dañuy dem Munich jeex na Binta Dabo waaw bés bi basam la Binta Dabo xaar ma ñëw jàkkaarloo yow defante ak yow teranga nga génne say nit génne say xarit génne say àndandoo ñu ànd def affaire la set du mën yomb parce que Aïcha Ndaw Aïcha Ndaw yow sama Aïcha nga Aïcha dama la lool bëggoon gis dama sa délégation sa gang ma ak ma Absia boutique yéen waa Sia boutique dama ni dégg naa lu rafet li yéen la lu jongama yéen la ah du yomb de dinaa xuus dugg ak yéen ànd ak yéen defante ak yéen lu baax ñu ñëpp ñaan ànd def délégation wuti fan la set du yomb ku di rakkaaju mais Pape nee na kaayoon ma li nga sol Cheikh ñoo ko déggandoo gis nga mbir maamook le sept la incha ci biir Ambour guddi raakaaju Pape Diouf et la génération consciente bañ fa gëjee nag dafa yàgg la ñu indaale ci ay bagages na ñëpp génn ci Allemagne